bëri nañ mais buñ la gisee cofeel gi ni am ci yow ak nit ñuy saax saaxee leader yi ak nit ñu bëggee danga xam ne sénégalais yi ku nekk xam nga ni liste boobu yemul ak yeneen liste yi boo jëlee nag beneen liste bi ñoom kenn gisul ñu leen ñu campagne dajale lu mat lu mat lu mat cent personnes fu ñu mën a dem dañuy taxaw seen kaw oto nit ñi gis leen ñu commencé euh, di euh, jubilé mel ni di yëkkat seen i loxo te boo xoolee duñu la woon mukk nit ñi àndal toujours oto bi la ñuy wone que amuñu ay

parce que man dama fee gisul ben coalition bu fi mën a demal boppam qu'est-ce un groupe parlementaire groupe parlementaire c'est 13 députés nañ ma wax ban coalition ci moom a amal députés amu ci ñu députés c'est dommage pour eux mais nous avons des députés moo euh, on aura vraiment euh, une assemblée de qualité parce que nous savons xam ni c'est dans ces élections là qu'ils vont disparaître de la scène politique parce que l'élection, yi l'intérêt de l'élection c'est day un renouvellement de la classe politique dafa am ñu bëri ñoo xam retraite politique Nous avons une seen jeunes malheureusement parce que nous avons une coalition moom am jeunes mais jeunes yo fa malheureusement ils ont a dem retraite politique pourquoi parce que dañu def ay choix yoo xam ne amul donc coalition bi comme ni l'ai dit, mooy coalition bi nga xam ni moom ki koy jiite moo fi nekkoon premier ministre du Sénégal euh, woo nañ ko débat ñu def seen i pexe réel ko ba CNRA wax ne débat bi mëntam mais ñun leen jàpp mooy moom amul fit gis nga politique boo amul fit da ngay bàyyi waa ji du dem waa ji amul fit amul charisme ñemewul a taxaw dëggal boppam lépp lu muy def da koy deflu pendant longtemps ay nit dara la doon nous nit yi élections dem élection ñaan na pour dem le 17 novembre fait des te buñ avons dañ koy duma duma yu leer des Parcelles avons mënu parcelles. Nous fi la leen ko wax bind leen dañ koy duma dañ koy duma Grand dañ koy duma amul fenn fu lañ koy man gëm ni bureau de vote mënu parce que nous, naan ma ngay yi pexé pour bureau de vote dégg naa mi ngi def fi pexe yu pour cette fois-ci même bu ñu ko dee gagné parcelle au moins mu gagné bureau de vote mais man gëm que les sénégalais yi dans ci bureau de vote am dofuñu un seul instant bay dem di voter kon li ñu jàpp daal élection élection il c'est plié sunu gars yi ñu jàkkaar il y a pas d'adversaire parce que sénégalais yi duñu ay dof dañu jël un président de la république Bassir Diomaye Faye jox ko une majorité dès le premier tour lu musul am Afrique léegi nag duñu dem. Nous avons, sept mois après une élection législative nous avons a euh, tegaat ci pour jox les réformes nécessaires pour que nous dem voter. parce que l'enjeu de l'élection c'est de faire les réformes à l'Assemblée nationale Et dafa am ay réformes organiques pour nga il faut une majorité une majorité qualifiée pas une majorité simple on a besoin d'au moins 99 députés pour nous faire les réformes Il nécessaire permettre aux sénégalais de faire ça alal ñu ngeen jotaat seen xaalis ñu fexe ba ñi xam ñoo fi rey ay nit une centaine de sénégalais ñu rey leen ngeen xam ñan ñoo leen rey ak ñan ñoo leen reylu ñu fexe ba lépp li nga xam ni ay réforme la yu ñu war a def yoo xam ne ci constitution bi la nekk yu ñu war a dindi ay institution yu ñu fi war a jëlee ay coppite yu ñu war a andi Sénégal mooy l'ensemble de réformes daf ci am ay réformes yoo xam ne mënuñu koo def te amuñu une majorité qualifiée kon xam lu lu may wax sénégalais suñ ñu voté massivement nous avons une majorité écrasante Nous avons def les réformes bu vous du ngeen ñu mën bilan bi ngeen di parce que pour pour ngeen nous ñu évaluer il faut que nous ñu tous les pouvoirs pour que nous puissions ñu exercer li nga moom la ñu ça qui permet de réaliser le développement mais si vous avez da pouvoir pour ñu nous ci éternel euh, débat politique qui nga mooy am nga xam ne dañuy nekk ñaari camp yi di bii combaaloo réew mi ci guuta la jëm parce que réew day toll moment boo dañuy bàyyi wax ji ñu liggéey te ñun wax ji lañ bëgg après le 17 novembre mu jeex ñu liggéey Sénégal pour yërëm suñuy doom yërëm sunu bopp ñun sénégalais parce que li ñuy dund nuy metti na en 1980 en Chine y a eu un leader charismatique Deng Xiaoping moo ñëw ni chinois yi dañuy dugg ci ay réformes changer la xar kanamu réew mi tegaat réew mi ci yoon ñëpp liggéey ñu àndandoo defaraat suñu réew lolu ñu am ñom en Chine en 80, tay tey ñu ngi nekk ci réew bi ñuy wax ne mo gëna développer ci aduna bi même États-Unis les gens disent actuellement les spécialistes disent que Chine mo gëna développer mais lolu lu ko waral moy dañoo taxaw liggéey am un leader bo am dafa xal yoonu ñepp top ci ginnaawam aujourd'hui nak on a la chance d'avoir des leaders yo xam si duñu sacc duñu ay kat té bëgg nañu réew mi kon bu len sénégalais accompagner léegi réew mi soppé kon nak na sénégalais yi voté massivement la liste aux élections du 17 novembre 2024 pour permettre au président Bassir Diomaye Faye de faire les réformes nécessaires pour ko fait le plus nga am la pour réunir ce pays. maintenant euh, pour terminer je vais poser une question. Je bëgg a wax ni réew mais li coow liy bëri bëri bëri bëri gars yi li tax ñu bëgg a nekk ay député xam nga lu ko waral Amadou Ba liste euh, député intéressé wu Amadou Ba su demee bay nekk ay tête de liste di xëccoo ay député du député bee ko intéressé de daa bëgg fu mu làqatu pour bu ëllëgee kenn du ko mën a jàpp il faut sénégalais xam lan mooy enjeu élection bi Amadou Ba du poste député moo ko intéressé kon su ngeen ko dee voteel yéen a ngi yàq seen i vote Amadou Ba lim fi luubal ci réew mi loolu la bëgg a nëbb ba kenn du ko woo moo tax mu bëgg a nekk député c'est la même chose ak ñu bari ñu nekk ci list Amadou Ba bi man dama ciy waxtaan ak ñenn ci ñoom dama naa leen waaye yow ak li nga fi def lépp presque pendant 12 ans ou par parfois sax certains d'entre eux yi def ñaari régime mu Macky Sall ak Abdoulaye Wade 24 ans au pouvoir nekk ay ministre nekk lu nekk lu ne ñu am ko ci alal fu ne ñu denc fax euh, alal ci ay paradis fiscaux ma leen lu ngeen xëccoo ci député. non non c'est parce que nous bëgg besoin liggéeyal suñu réew déedéet liggéeyal seen réew taxu leen de li leen tax a jóg bëgg pour que buñ député pour ñu mën leen a jàpp jàpp bi jafe loolu leen bëgg ñoom ñëpp du ay salaire député moo mais li leen intéressé mooy aar seen bopp tax ci coalition bu ma ne jàmm jàmm sa jàmmi bopp ak jariñ sa bopp mais réew mi taxu leen a jóg kon lii leer mooy élection yii nu jëm ñi nga xam ne ñoo nekk jàkkaarloog la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye di jéem a def tout pour du am majorité te mënuñoo teye sénégalais yi voteel ko mu am majorité pour mën a def réforme yi ñoom ñëpp li leen ñor seen bopp la mais du réew mi moo leen ñor loolu nag ñu wax ko sénégalais yi ñu jël seen responsabilité On nañ ko nak parce que campagne bi sommes ñoo mobiliser fenn fu mëna dem kenn coalition mi ngi mobiliser à l'échelle nationale kon japp nañ ni li ñu gis ni dal xel et le 17 novembre 2024 le résultat yi commencé wacc ba ni di bureau de vote bureau de vote sangam coalition PASSEF, amna sur l'ensemble des votants 280 votants ñun amnañ 270